waaw mu demee woon dëgg la doonte deme ne ne ñëpp itam nit ku nekk sa wàll nga xam waaw diwaanu surkul jawaahir fi ak bari saraay fee ca daal ma taxawoon jël rajo ba ne ku jàpp day dem ku jàppul day dem defe naa la moo xam ñëpp gis nañ ba muy ñëw ba ma ñëppee daw itam te ma nekk sukkoor yi te mu ñëw fa yax bu du kulli la rabbal alamin nga xam ni dafa doonoon moom la gënoon a bëgg ci woy waaye loolu yëpp la ko jiitu Kadung ndaayam sa kàddu maam rek doon xool ci man mu sa mu sa mu job, job, job. si Diop Diop Diop Diop na nga def gi sëggi day niru gëje rek waaye ko jamono dañ di di ko radiyallahu anhu jëwriñam ji mu fi bàyyi mm-hmm. waaw te aw melokaanam maa aw melokaanam wax ji benn ci ñëpp waaw mm-hmm. wax ji benn ci ñëpp mm-hmm. ci si ñëpp bi rahman bi bu bàyyi sa xat bi moo ci mujj waaw ñuy waxtaan ci sa jëm ma ne ko nag dafa am yoo xamante ma am ko xam ne boo ko doonee ba noppi am loo xam ni nga doon ko boole ca waaw boo melee noonu du jaaxal kenn waxtu boo nu gisee ak boo gisee jamono bu nekk ñi ngi lay ñaan fan gudd ak wér li ci des lépp yaa ngi ak moom waaw li ca des lépp yaa ngi ak moom fan bu gudd ak wér rek lan lay ñaan bu nu sañoon saa su nekk moom nu fi ñëw xam ne jamono moo nuy tënk rek waaye xol bi ak xel mi mosu fee jóg naka lii nuy waajal tam ci taxawu gën a taxaw gën a mën a taxaw daal te loolu sa waajur wax ñëpp xamal ko ni foofu la tegoon tànkam ñu jëmale daaru kanam mm-hmm. ak luy dundal su sa sunnas maam sunnas mm-hmm. si Moodu Awa Balla mm-hmm. waaw fi mu toll yooyu lanu bëgg rek mu am ay amélioration yooyu rek lañu bëgg fi mu loolu moo tax nag euh, ñu fas yéene nag tànk yi di ëpp fii ci penk di ëpp fii ci daaru ngir loolu ñu jëmal ko waaw te am na ko yéen ñi nga xamante bi <laughs> yéen ay yéen ay lépp yéen yéen ay ceeb nag dindaayam ko so moo tax moo tax man sëriñ bi rek foofu ñu ñëw ziyaare la ba noppi nag laa soxna Moussa Diagne man su ma waxoon mën naa ko wax ci mbooloo mi te jàpp naa ma ko waxee ñëpp lañ ko nag damaa wéeru si ñu yoo saan ko suñ kalaat cër ko yàlla ci moom laa gisee fi mu toll nii ki hmm. gën a tuuti hmm. ci sëti borom daal tey waajur hmm. bu ko nuyoo dana suñu mbaax naan su jotoo. waaw toog bi mu toog suuf. Mm. su fekkoon maa ñëw tamit nii la koy koy def. tey itam ba fi ko si jooyu lay def. Mm. kenn déggu ci mm. ko si nekkoon wala ba yow mii ko déggoon wala suñu saab sa dana ko yàq. a dem nekk ci mu war a sa saar yi. di toog tolle ko suñ ko sa bàyyi yàlla. bi. waaw xam nga wutu jàmbar nag wutu jàmbar boo amul ndimmal waaw maanaam jàmbaar la wut waaye nag ndimmal li moom mooy nag eh, ki mu doon rek ki mu doon ki ñu ko tuddee ñu ko tuddee maanaam dafa am nag maddaleel xusna wa maddali zayet zayet boobu te moom dañ nag reer Maroc la jàng waaye maddaleel xusna wa maddali zayet man li yaqulu haaka xam la mat di yett jooju plus boobu zayet boobu day jeexital ci moom day jeexital ci moom tabarakallah man maa ko noonu dañuy ñëw ziar bu beneen yoone nag la ñuy ñëw ngir yenn waaw loolu laa ko wax laa wax sëñ Abdou ma waxee ay bernde ma ne ko déet ëpp naa def dañuy dem ko bu beneen yoone nag waaw dañuy ñëw yenn incha allah waaw buñ ci yàlla buñ ci tànnee. yàlla bi wax maanaam li ko li ma tànn. naqar naqar lool. te day am loo xam ne ñuy wax daroor yi la. maanaam daroor yi day lool maanaam maanaam obligation la. waaw te du ko ñàkk. moo tax ñu yëkkatu kàddu. bon ci sama xol laa ko jëlee di am mbégte yi tamit bu baax mm-hmm. ci jotaay bi te li ko waral mm-hmm. lu bare bari la mbégte mm-hmm. euh, bi itam bokk na ci man de tey bu ma gën ma xam nga loolu baax xam ne sama góor yi maanaam waaw su ma woon léegi doo ko xam ma ne ko xanaa léegi talibe sëriñ Tuuba laa xam man sama xam-xam bu gàtt sax man mmh. sa talibe ci sëriñ Tuuba sa bëgg sëriñ Tuuba maanaam jàpp naa ne lu wér la ci man naa ko ci say waxin naa ko ci defin de sax ci dëgg bokkaat ko. mooy sëñ bi daaw bala moom la tudd. ku dul sëñ bi daaw la. loolu ay mbégte la. war war ci daje ci man ma di teew. war man ma lay dalal. war di am xol bu set. war ci ñëw bi ñu ñëw. te jàpp naa ne. sëñ ko sofu mu nekk. xanaa waaw.

loolu alxuraan naa jàng naa ba man sóoram. Hmm. mooy la euh, pënd la rek. Hmm. waaw barakallah barakallah maa ngi lay sant ba keroog ci guddi. muy hmm. ci seen kii bi. waaw te asabala ci lamp. ci tubaab bi tubaab bi ak na nga dikkee maa ngi lay seetal. te booba. <laughs> boobu sax xam naa ne moom ndax ñëw moon ngir dama ne woon dafa amoon mbégte mu ma dugg rek ma ne woon naa taxaw ci bunt ba bu ñu am ñu ci am ci ñoo xam ne ma neexal leen waaye directeur du programme bi ñëw jibi bi ma nuyoo nag ñaan ma ni ma faw nga nga gis ni xam nga bu may dem ci àll bi rëb bi laay solo noonu waaye waaye boobu itam ñu bari rafet nañu ko ñu bari rafet loolu tabarakallah

fii ak weer wi dee nii fii hmm. ñaari ay bis jëm ñett hmm. waaw maanaam la jàpp kenn gi fii ñëw yenn hmm. incha allah da waxtaan bu baax waaw waaw maa ko ne waaw maa ko ne rek man maa ko wax maa ko ne nan dem ma ziyaara ko junj ko rek li nga xam ne moom lañ fas yéene waaw comité de coordination bi ñu fas yéene ci xilaafa gi waaye ngir daaru nag ngir daaru gën a gën a mën a am beneen xar kanam boo xamante ne bii waaw noonu nag bu ko defee man man waaye bu soobee yàlla ni ma ko waxee fii ñaari ay bis jëm ñett dinañ fexe ba waaw ñu fi ñu am fi la ñuy yend bu fi ñëwee tisbaar mm-hmm. euh, nekk fi ba kii incha allah. Ah, maa ngi nuyu itam waaw waaw waaw waaw Serigne Ousmane waaw waaw ñoom xale yi. tabarakallah waaw tabarakallah waaw tabarakallah. tabarakallah. amiin ak ñun ñëpp te nu bokk. waaw tabarakallah. tabar ah loolu kay <laughs> di Maroc sa eh? mhm. di wayju loolu ci nga nekk rek kii firnde ci. dama nag sa waa ji karaa firnde ci. firnde la ci. waaye dara moom day. damaa damaa damaa jooy ci diggante bi rek. Hmm. xam sa diggante ak sëñ ko waaw dama koo xam xam nga def ko. de moo tax bi may ñëw damaa de. mënuma sax waaye damaa cëkk tuuti xam sa diggante ak sëriñ bi hmm. xam sa diggante ak sëriñ Kara ila tamuuda aqaahum saalihat hmm. an ihbudullah fa iza hum fariqaani yaxtasimuun ah,

Oui. oui. Amin.